jërëjëfati sëriñ Saliou mbokk taalibe yi ñu ngi leen di siyaare euh, yéen ngi fii si kër gi mu euh, Mountakha ak Serigne Saliou ci ndigal ñoo nekk ñi ñu fas yéene fas yéene baaxee wan leen lu fi nekk wan leen lu fi nekk waaw ñu nii yéen ngi en direct suñu Jurul TV kooku mooy Baye Mourou Thioune moom la Serigne Sall Thioune doon présenté Baye Mourou Thioune a nekk noonu dañ ko gisandoo sëriñ bi jot ko ay kaamil jot ko ay kaamil. Hmm? Hmm? Hmm? ñu ngi doon ànd ak uh, kooku kooku muy présenté kooku mooy Mamar Ndiaye. Mamar Ndiaye moo nekk noonu